naka laa jël sama nopp bii. Hmm. dégg nga. Hmm. ko ci fenêtre bi. waaw ah cëm. ndekete ñaari kàccoor ne jëm. waajal. dugal tuuti. ah léegi wóolu nga sama doole kon. waaw waaw waaw yow wóolu nga sama doole. dugg nañ. non non yaa ma ko tàmmal. ah ah. waaye gis nga. oto àttoon ko saxaaru koy diri. newoon naa la ñam ma. eh waay moo tax bul ko taay. maa la jël nii yow. ah maa la ko jël. ah. yaa ngi nii daal. waaw kon noppal maa ma wax. ah yaay wax. waaw waxal waaw waxal. papa gis nga mag bu amee sutura. waaw moo ko may boppam. dëgg la kay te nag olof yaay nee na fooy naa di nëbb. ah boo maa dee fee. nee naa dur nee naa dur ay ma lay la xëy danda. sama laa nopp. wuy yaay booy. dama laa nopp ngay waxee nii yëpp. ma nga daan jëndal jar na ah. wante yëruwut waaw yëruwut ndax maa ngi nii woote mu waroon a di taata mi fii gis nga fam ne nongo ci kaw moo ma gën a kaayee fi mu toll nii. mais ñaata appel laa la woo mënu fexe ba jot la. da nga xam lan moo ci nekk ba nga ñaata appel laa la woo da nga maa mës a woo te jotoo mais ci ngoon ba léegi maa ngi lay woo téléphone mer yow caga nga rek man bu mësuma laa nag fooy la donc moom taxoon na jël ko wax jóol si waay soo ko jóolee rek di du yow silib sax munoo ma fii nii doo ak ak rëbbi na douche bi mu naan xaba ba ba ba ba bi fees ñaari fan ma wii de. loolu day fekk ni jaay ruba ah! ci rek bu ko xale yi tëjee. ma ni xoolal sonn naa ci ñaari fan yu ne 18000. sonn naa ci de dimbali bi waay.